loolu xam naa ni ñuy duggee ci jataay bi mooy li Cheikh Mamadou Fadal wax mooy dañ koy tënk rek ci ñetti tomb yoo xam ne dañ koy lëkkale mu gaaw ci ay tënk ndax soxna si dafa am xasida goo xam ne dama ko bindoon ci soxna Awa Bousso mu xemmee moon lool ñu barkeeloo ko ci bis bi jëmmi xasida gi nag lépp du fi xaj dama cee jukki rek lenn ci ay bayit yoo xam ne daa mel ni eh, dana mën a yóbbaale mboole mbokki bayitam ya ca des waaye li may ubbee rek mooy ki nuy waxtane muy cheikh mamadou Fadal day géej dafa donu cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul zahiran wa batinan ni serigne Touba donne ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan serigne bi nak dafa waxone ne lil bahri khad wajhtu inda al bahri madhan bihi xad misl al bahri man serigne Touba dama jublu ci géej fek fa geneen géej mu yakamtima ma tëb bu ci géej googee ba nekk géej mooy bayit boobu sëñ Musaa Ka di tënk rek ci ay wolof di wax ne bambaa ji géej gu tàbbi géej fekk fa géej mu ne ko géej mu doy ca leer ya ba ne géej te mooy géej gu jëkk gi mooy sunu borom géejug ñaareel gi mooy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam gu mujj gi nag mooy gi taxul sëñ Tuubaa di wax naan xat surtout misalal bahri mujj naa mel ni géej ngir fees dell ak ngërëmi borom sëñ Fallu li mii waxtaane nag nii sëriñ Tuubaa donne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam zaahiran wa baatinan noonu la donne sëriñ Tuubaa moom loolu danaa ci indi ñaari firnde yoo xam ne jenn jenn wax ji waxi sëriñ Tuubaa la jenn waxe ñaare ji des wax Cheikh Mamadou Fadal euh, dañu wax nag ne fii li takfi liman la ginnaaw dafa xate noonu nag të tënk tënk bi may tënk nañ ma jéggal ndax li ñu war a waxtaane bu ñu ko jëlee ci ni mu yaatoo waxtu wi da koy da ko dul xajoo bi ci jëkk waxi Serigne Touba la al isharatu nag takfi liman aqala am na loolu mu ne su ko wax ci biiru mbooloo waaye ab xew-xew la bu xewoon mag ñi ko fekke woon ñenn ci ñoom ñu ngi fi ñi ci des seeni nettali ak seeni ndono ñu ngi fi soo ca junjee dara way xelu yépp xam la mu doon waaye mëni ko yaatal nag ci biir mbooloo mooy dafa am xew-xew bu xewoon ci ab jëflante lenn ci mbooloo mi am ñu ci jëflante ak Cheikh Mamadou Fadal jëflante boo xam ne daal daa mel ni taxul mu rafet ba ko Sëriñ Tuubaa yégee daal di wax ne man de xawma Muhammadul Falilu luñ ko bañe Sëriñ Masàmba Kan ni tontu Sëriñ Tuubaa ne ko Mbàkke liñ ko bañe mooy li ngay ndayam di bàyyam Sëriñ Tuubaa tontuwaat ko ne ko kon de lu leen naqare ci moom dana yokk ndax li ne ci man lépp danaa ko def ci moom li ci xaj danaa ko ci def li ci xajul ma xaj xajal ko ci ba lépp dem ci loolu waxe Sëriñ Tuubaa sëñ Fallu nag ba muy tontu loolu da koo tontu sëriñ Mbàkke Buso ca Màkka sëñ Tuubaa da koo waxoon ne dañuy ànd dem Màkka dafa sëriñ bi dafa bind ak xasida mu yéeme lool mu di ko jàng sëñ Mbàkke yéemu ca sëriñ Tuubaa ne ko dinañ ànd di siyaar yonante bi sallallahu alayhi wasallam ma di ko nettali sëriñ bi mu wàcc ab liggéey ci zahir 1928 sëñ Fallilu ànd ak sëñ Mbàkke Buso sëñ Mulaay Buso sëñ Tàkku Mbàkke Cheikh Maam Cheikh Anta sëñ ñu bare bare Cheikh Ibrahima euh, euh, Cheikh Ibrahima Dia sëñ Mandiaye jóob ma mbooloo mu bari lañ xëy na topp xisa bi muy jël temps du ko mat li ci gën a am solo rek mooy li ma bëgg a wax mooy li sax ñëpp xam ne sëñ Falilu dem na Màkka te demal fa sëriñ Tubaa ca yéeneem joojee mu masa làmboo bi sëriñ bi demee ba egg ca barab ba sëñ Falilu toog ci barabu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jàng xasida ga sëriñ Mbàkke Buso eh, fàttali ko waxi sëñ Tubaa jam ko noonu xasida gi danaa ko jàng ci kanam yonent bi sallallahu alayhi sama seere mu xaar ne su sëñ fallu yeggalee ma ne ko ah lii de sëñ tubaa waxoon na ma ko ndeke yaw la jublu woon a wax sëñ fallu ba mu yeggalee xasida ga bàyyiwu ko mu di ko nettale ndax loolu ba ko sëñ tubaa di wax ñoom ñaar la suñ suñ ko gees ne ko waa ji a waay maa maa la ko waxoon maa def waa ji mën a man maa la waxoon maa ko def maa la waxoon ci kanam yonent bi sasam maa ko jàng kon man maay sëriñ tubaa loolu lay tekki ñeneen na duñu waaye bi mu dikkee nag moo tax sëñ fallu ne sëñ tubaa ci xam gi mu ko xam ak xam gëddaam ak wàccuwaayam ne ko yow sëriñ bi nga xam ne yaa tijji la tëju woon la nga xam ne daal bi fi yonent bi sa saam jógee buntu booba dañ ko ne ràpp bi nga dellusiwaatee yow Cheikh Ahmadou Bamba yaa indi caabi ji yaa ko yaa faatiyaan maa xablu kaana mur ne ko nag biatu ba nu watiya bil iraada man sëriñ Faliilu nag jaay naa la sama njuréel gi nga ma juróon jënde ko ak namel ci yow di sab taalib waaye nag min baadi mastaraytumuha minni gannaaw bu ngeen ko jëndee ci man ba njëg gi ñeel ma di sama alal ahdaytuha lakum bi xayri man ni delloo naa leen ko addi yéen Cheikh Ahmadou Bamba ci lu dul ñaax loolu ay ishara da ci nek yo xamne buñ ko dul firi ñu bari dañ ko xam fali lu ay tegginam ci sëñ tuba ak jombante nak mu jakarlo moom di ko ñaax loolu ay junju la tol eh, nam tollon ci yalla te sëñ tuba ba gané jamono ci daru salam moy wax Cheikh Ibrahima Fall ne ko demal ziyara ji soxna abou da am gan gan gogu nguruk suñu borom gi nim toll suma teggi won man sëñ tuba fu mu dem dana fa lëj le difa makare poko pokk xaaral mënuma ko ñak nonu mu toll ci yalla nak mu dikkel sëriñ tuba nak wonut sëriñ tuba ne ko man kat mënuma woon a ñàkk waaye doon ko xam dal ni nga ñepp nga ma te bu ma fi toogee ak sama wilaay ak sama mayug yàlla gi taxoon ngay dagaan yàlla indi ma ci yow dinaa xet li ñëpp bañ xam ne du ma kenn kenn du man waaye su boobaa nag du ma dimbali kenn ba di ko won ne maa la gën ñoom ñëpp dinaa leen naa ko ma la a lii déedéet waaye ñi yaakaar lay boole faj seen aajo du xammee du am xejj ak seen te bu boobaa jëmmi sëñ Tuubaa mooy tax mu di ko def waaye du ko def ne ko maa la gën ak maa la mii nag sëñ Tuubaa da koo soxla woon ngir xam li yàlla dañ ci moom géej la gudul jeex 1945 euh, la Cheikh Mamadou Moustapha wàccub liggéey guddig àjjuma 1945 sëñ Fallu bis bi mu njëkk toog ci addu ci xilaafaam ci àdduna mooy bisub àjjuma te bisub àjjuma la gën a jamono la gën woon jamono ca Daaru Salaam moom moom bés bi gën ci bis yi weeru yonent bi sasam mi nga xam ne ci la bi ëppee mbégte muy al isra wal miraaj léegi mu dikkee bis bi bi bi bi mu bi sëñ Cheikh Mamadou Moustapha wàccee ab liggéey guddik alxames ci 1945 Sëñ Fallu xëy waaye waa ay na ay jeex na waaye dóor sirène yi déclaré guerre bi ne cessez-le-feu de la guerre premier jour xalifa Sëñ Fallu la guerre bi jeex bi mu dikkee nag xetli gi mu doon xetli mbindee fii moom bis bi mu njëkkee ci xalifaam rek la ne ay na ay jeex na sirène yi déclaré na guerre bi jeex moo ko taaloon keroog bi Cheikh Moustapha ñëwee ci Fallu ne ko ne ko tubaab yore jumaa ji daf maa convoqué ci Europe ñu ne ma naa wut avocat Fallu avocat mu ne ko avocat mooy ku lay layal ba sow lay kenn du ko mën a sànk ma ne ko kañ la mu ne ko talaata mu ne ko waa ko tal moom ab eh, la woon daal dañ koo libéré woon 39 45 déclaré guerre bi yi la jëli ñu jëli ko yóbbu ko ca front de guerre ba fa mu wàcc lañ ko dóoree bal dos ba kenn lalatu geer ba taxawut ba keroog bi Cheikh Mamadou Moustapha wàcceeb liggéey Sëñ Fallu dóor loxoy ne na ay jeex na ñu xëy ne geer bi yeex na